Euh, nuyu naa leen di leen li ñu bokk. jërëjëf Seck. te mu métti ma lool lool lool lool mm-hmm. waaye nag yàllaay dogal. dëgg la. ñun ñu ko comme musulman chrétien hindou. Mm-hmm. bu ñëwee rek ñu nangu ne yàlla euh, comme amul ku fi jaar bés. ñu mm. nangu ko rek te muñ ko ko ndax yàlla. Mm. xaare ko ca këram gu sell ga. amiin amiin yaa rabbi. abe abe mën nga ñu wax ci kilifa gi moom Pape Malick Sy. waaw Pape Malick.

mu ne waaw labe suma dombi, bi sori ñoo koy jàngal ma ne ko ah comme man nga woon nag loolu la ñuy def ce qui fait que dej bi sama dej la ensuite ki jëla nekk Eliman Palmari Ababacar Ndour moo mhm. takkoon eh, ami tening sek ma bokkal ndi ak mhm. ba tax boo laalee alquran di wax lu ñaaw dinaa daanu suuf di mhm. awaaw di <laughs> dëgg la ndeysaan su dee ma soeur est née à épouser le premier imam de tout Palmarin ma di ko mhm. ah, moo tax kenn duñu xaaj de. Mhm. parce que Allahu ahad. fu ñu jaar rek daji si moom. dëgg la dëgg te oustaz euh, woo na ma sànq ne ba Pape bu ñu toogee bi gannaaw ëllëg il faut que ñu dem parce que mënuma leen jaaree nii rek ah damay dem ba ñu xam ne ci ñoom laa bokk. Mhm. te daan dem. dëgg la dëgg na jël ko daal. gannaaw ëllëg incha allah dinaa ànd ak suma Oustaz Ndour suma hmm. doom ak Eddy Camara suma beneen jarbaat hmm. ñu dem def li ñu war a foofu incha allah jërëjëf Abe ñu ngi la koy jaal yow tamit ni nga waxee wëllëri la woon la ci yow di la gërëm ci taxawaay gi ci wàllu euh, diine ji ndax euh, gis nañu loolu war euh, li ñu naan dialogue islamo chrétien Sénégal wees na foofu sax wala waaw waaw weesu na ko waaw weesu na ko weesu na ko. jërëjëf Seck. dañ koy dunda du teew dañ koy dunda. dëgg la wallaahi dëgg la jërëjëf. parce que bu oustaz oustaz demee Makka laal xel bu ñuul ba grâce à man bi. Mhm. <laughs> est-ce que macha allah ma oustaz comme mënu ma dem boo nga nga laal ma xel bu ñuul bi. maa ko dëgg la papa naa la ko laalal ñu lañ bëggee Sénégal. jërëjëf Abe yàlla yàlla yàggal taxawaay gi. amiin amiin amiin amiin. merci RTV Dakar yeni ñi abonné gul abonné len gaaw ba kulus notification bi ndax moy tax ngeen di am lépp lu fi bayiko ko